gën a jàmp jamono ji organisation su régionale yi nag gisuñu ko mu di nag bëgg-bëgg Mamadou Racine si ak i ay ñooñam namm koo nag gën a ñoŋal ci nu mu gën a gaawee. yaakaar naa jot na nag ñun ñëpp ñu xam ni Afrique bu dajaloo moo mën a concurrencer àddina wërngal këpp su ñuy dem ci salon yooyu am ca biti réew réew mu nekk lu ndaw lay yóbbu ci yooyu le salon wala sax mu bañ cee teew loolee jaarul yoon. waaye suñu dajale suñu ressources ak suñu ay moyens suñu taxawaay ci yooyu les salons dafay gën a ñoŋ. présence significative. juróom benn junni tey euh, pour jàppale leen ci marché bi waaye dafa mel ni dangeen euh, soxla ñu gën leen a jàppale pour ngeen mun a am subvention bu ëpp solo donc euh, montant bi ñu waxoon initialement muy les un million naa ko doublé def ko deux millions. Euh, pour que jeunesse su chrétienne mbaaw mun a euh, cotiser ci seen marche bi ñu mun a def déplacement comme niñ ko baaxoo di def chaque année euh, dialogue islamo-chrétien dafa nekk une réalité au Sénégal comme nu ñu koy waxee Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar ñu wax nag ci conseil d'administration de la euh, confédération patronale de l'industrie touristique des pays de l'espace CEDEAO ñoom nag euh, dañu euh, faral at mu jot ñu amal ab session bu ren bi nag ñu daal di koy amal ni ki tey ji fii ci Ndakaaru maanaam ñi nga xam ne nag ñoom ñooy yëngu ci wàllu tourisme ak rawatina réew yi ci mel ni Togo Niger Guinée Bissau naka noonu noonu euh, Guinée République Guinée ñoom ñëpp li nga xam ne moom la ñu am ci ay euh, objectif maanaam seeni mbébét mooy fexe rek ba gën a euh, dooleel li nga xam ne moom mooy secteur bi amee Aminata Bassine lañ ci àndal lan moo ko gën a jàmp jamono ji organisation su régionale yi nag gisuñu ko mu di nag bëgg-bëgg Mamadou Racine si ak i ay ñoñam namm ko nag gën a ñoŋal ci nu mu gën a gaawee. yaakaar na jot na nag ñun ñëpp ñu xam ni Afrique bu dajaloo moo mën a concurrencer àddina wërngal këpp suñuy dem ci salon yooyu am ca biti réew réew mu nekk lu ndaw lay yóbbu ci yooyu le salon wala sax mu bañ cee teew loolee jaarul yoon waaye suñu dajale suñu ressources ak suñu ay moyens suñu taxawaay ci wele les dafay gën a ñoom. présence significative. bëgg-bëgg boo xamante ne itam taamu nañ ko te yiite woon nañ ko bu baax bu ñu sukkandikoo ci jëwriñ bu yor wàllum tourisme moom mee di Mame Mbaye moom sax di leen indi la taxawaayam te fas yéene gunge leen ci bu baax a baax. en tout cas ñu ngi leen di ñaax ngeen gën a xalaat ci ban taxawaay la suñu communauté bi war a am ci secteur bi nga xam ne daanaka mbas mi nërmeel na ko bu baax a baax ñun nag fii ci Sénégal ak suñu complicité ak jàppandalu njiitu réew mi jot nañu sauver ay établissement yu bëri donte sax nag xam nañu ne bëri na ci ay patron yoo xamante ne yi ba léegi mënuñu fexe ba suqaliku faw nag ñoom ñooñee ñu xool nu ñu leen di jàppalee. Il faut chercher même d'ailleurs à aller repêcher. diiru ñeenti fan organisation su régionale yi namm nañu nag took waxtaan ngir ut ay pexe ci secteur touristique bi fësal seeni ay stratégie ay stratégie yi nga xamante ne sax dina am njëriñ bu baax ci secteur tourisme bi lee